mbokk internet yu DKR 221 dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fes ci xibaar yi daal di koy dooree ak wàllum politique ginnaaw tamante dëmm gi nekk ci Aminata Touré ak ñafare ci mouvance présidentielle bi jàppale na nag sëy wa doxoon ci diggante Aminata Touré ak njiitu réew mi président de la république ñeel wàllum politique sëy boobee daal dinay ànd tàbbi ji géej ca waxtu boobee nag jàppale ni nag ñaar ci ay journal daal dina ñuy xëy journal yooyee di la quotidien ak las quotidien di xam ne nag daal dina Aminata Touré moom mi fi dañu ko daal di épinglé ci rapport bi nga xamante ne nag waa IGE ñoo ko daal di publier ca waxtu boobee nag jàppale ni kàddu ya tàbbiwul ci ay noppi tax ndaxte kii di Aminata Touré moom mi fi nekkoon présidente bu conseil économique social et environnemental daal di nay dellu si bu baax a baax ci rapport boobee ñuy xam ne nag daal di ne ko daal di épinglé ki di Aminata Touré nag nee na wax joojee du ko bàyyi sax muy fanaana ndaxte nag jamono ji ñu nekkee ci mouvance présidentielle bi rawatina président la république Macky Sall li bëgg mooy mille milliards yi nga xamante nag fond force covid 19 bi la ñu ne ko dindiix daal di koy lekk loolee la bëgg a camoufler ba bëgg kaa jaaree ci man waaye man mi la damaa daal di set moom mi nga xamante ni nag jamono jile li muy sàkku képp koo xamante ni mës nekk président ca conseil économique social et environnemental ñu daal leen di woo daal leen di auditer te bis bu ñu leen di auditer na presse nationale bi taxaw presse internationale bi daal taxaw Aminata Touré teg nay def li nga xamante ne rek moom moo di liggéeyam ba mu mot sëkk damay bokk ci élection présidentielle atum 2024 yooyee Aminata Touré di xam ne nag daal ne tuuma boobee te ñaar ci ay journal daal di koy génnee ñu teg ko ci aw deram mu daal ne dara du ci dëgg ba ñu déggee ni dama déposé sama candidature ngir nekk présidente ci atum 2024 moo waral ñu daal di génnee boobule information mu daal ne amul benn rapport IGE boo xamante ne nag daal dina may épingle ci weeru mai atum 2022 mu daal ne loolee amul ndaxte nag bu di ma def tête de ngir ñu battre campagne ci élection législative yi nga xamante ne nañ ko juillet mu daal ne mu ngay naqarlu bu baax a baax information boobee nga xamante ne daal koy génnee teg ko ci kawam ngir bëgg a nëbb seenub scandale milliards bu fonds force covid 19 googee mu daal ne ci kanamu sénégalais yëpp conseil économique nag social environnemental mu daal ne nag jamono joojee moom ba mu ko yoree liggéey wu set wecc la ci daal di liggéey mu ngi sàkku nag ñu daal di def ab audition publique collectif daal di koy jëmale nag ci inspection générale d'état te ni nag ñetti président yi nga xamante ne nag daal dina ñuy jiite kërub liggéeyukaay googee di conseil économique social et environnemental moom mi nga xamante ne nag moom moo fa nekkoon ak ki nga xamante ne rek moom moo di madame Aminata Tall nga xamante ne daal dina fay toog ci lu tollook juróom benn ci ay at mu ne moom Mimi Touré daal dina fay toog ci lu tollook at ak maire ak jamono ji ka nga xamante ne nag moom moo fa nekk di ndaamal kajoor di Idrissa Seck mi nga xamante ne poste boobu toogagum na fa ci lu tollook ñaari at ak ñaari weer mu daan ne nag lu benn document boo xamante ne rek dinañ ma ko laaj ma daal di koy réeral wala ma daal di koy fàtte ñun ñett ñëpp ku ci nekk na nga ñëw ak say document ñu daal di xool ana naka la def daal di waxtaan ci wàllum technique ginnaaw bi nga xamante ne nag kenn ku ci nekk yaa ngi yor say këyit ci wàllum comptabilité ñu daal di def ab audit mu ne su boobaa nag ñu ngay sàkku ci presse national international ak askanuk Sénégal ñëpp daal di leen di mayuk nopp Aminata Touré mi nga xamante ni taxaw na daal di fëggub dënnam di wax ne nag daal di ne intimidation bi du jàll benn yoon ndaxte nak mu ngay fàttali président Macky Sall daal ne ko moom moomee ci atum 2011 yëkkati woon nañ ay tuuma daal di koy teg ci deram daal ne ci lu tolloo ko 7 milliards boo xamante ni fonds taïwanais la daal dina koy jël ni ko di ndex daal di koy lekk ba ñu ko convoqué ca commissariat bu police bu plateau jamono joojee nag daal nay taxaw daal di setal deram ba mu seet ginnaaw ba ñu koy tuumaan ci wàllum blanchiment d'argent gouvernement bi nga xamante ne nag ba noppi te it te doo ci bokk ndaxte nag jamono ji conseil constitutionnel moom moo la mayul ngir nga daal di bokk te yooyu les élection ginnaaw bi nga xamante nag kii di Aminata Touré nee ab audition publique lay sàkku ci IGE ngir mu daal di def ab liggéeyam moom ak ka nga xamante ni wuutu ak jamono jamono jii ka fa toog ñoom ñett ñëpp ñu daal di taxaw nag kërub liggéeyukaay googee lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum audit ñu daal di leen di audité ñoom ñëpp te moom kenn du ko épinglé ci benn dërëm nee na nag état du Sénégal jamono ji li muy nëbb te mënta nëbb mooy mille milliards yu covid 19 bi ana fan la ko dugal na ci daal di wax képp ku ci lekk ñu daal di lay traduire kanamu yoon bu ko defee rek yoon daal di def liggéeyam Aminata Touré nekk député ca penc ndaw réew ma déclaré ab candidat wam ci élection présidentielle atum 2024 moo daal di def googule tontu